Ousmane wax na ko léegi mun naa cee bañ ñëwaat. jërëjëf waane ñi ngi nuyu ñëpp di wax rek ne ñi fi jaar sax am na lu ñu wax jarul ma ciy jaaraat. Mhm. tey ndaje mi nii mu ñëw xam nga ne alaa daw me na ba ñu xëyee ba léegi ci bés bi lañu ne. waaw bi ñu yeewoo bi ñu jógee Jolof ñëw nañu suñu xarit bi Mamadou Kobar. Chéri Abi. Mhm. Baye Ñoxor Diouf di kenn ci man di kenn ci Cap Production. nga xam ne boo ko gisee muy dem bu laajte lu muy dox développement rek lay dox. Mhm. jox ñu ndekki ñu añ jóge fa dem ci ki nga xam ne mooy Daouda Samb Njurwaan Sow. Mhm. nekk fa jox ko drapeau moom tamit mu def fa trangu yu rëy. di wax fa wax ju rafet. Mhm. ànd ak mbooloom Jolof mépp ñu nga xam ne assisté nañu ko ñu ràññee ci bu baax Salimata Aly Ngouille Ndiaye. nga xam ne ñëwoon na fa jóge fa réeruñu changé leen def jóge kër ga rek ñëw fii. kon bés bi. Euh, dañoo dugg ni si buru bés bi. bés bi. da leen a dugg ni si biru. waaw dafa am lu ma tombé. waaw. dafa tombé dafa tombé euh, dafa tombé ba le huit mars. Mhm. le huit mars dafa nekk feet gu rëy muy feetu jigéen ñi. su jigéen ñi. yaaba na bés bi ci boobu la koy dugal. Mhm. xam nga tey lim nga ko léegi boo jëlee ci biir drapeau yi jaaba jël jigéen. Mhm. ne drapeau des mères jël ko jox ko Kumba Jaw muy jigéen ju mën góor lool. nekk jolof di def social jàppale jigéen ñi. yaaba na du ma leen fàtte ci gannaaw dama leen dugal ci biir waaye kumba day teewal maire yëpp. ndeysaan kon jox na jigéen cëram ci biir bés bi ndax dafa bëgg ñu si seen bopp. tey euh, ñu jóge fa li ma la wax léegi mooy Daouda Samba Ndiourouane mi nga xam ne responsable politique la APR di liggéeyal président mag Sall. Mm-hmm. waaye nekk ci gannaaw magam xam naa dinaa ci ñëw. alaaji ali muy njaay ndax buñ ciy wax mën nañoo salaatu mën nañu fee fekk mhm. ndax day kenn ci ñun jóge foo wax nga ko léegi Mara njaay nga xam ne moog ñi ci biir kàppi bokk dañ koo sagar rek waane mhm. tey fii Mamadou Kobar toog moo fi Mara fee yaaba toog moo fi Mara mhm. ndax saan wa demoon mën naa dikk ndax kii toog Faat Abdou Ndiaye ko jur Faat Abdou Ndiaye Abdou Roqee ko jur Abdou Roqee Faagay Ndiaye maami Mara ñoo bokk ndey ak baay Ibra Ngoye seen baay kon maaraa ngi noonu toog kon dayaa ba dafa jël bi rek tuddee ko boppam mu jël drapeau bi tuddee ko Maguette Seck commerçante bu mag bi waxul kenn bu ma doon góor boo ko fekkee marché Linguère mu takk sërëm nekk jàmbaar lool li ma la waxoon laa lay waxaat yaa ba fàttewut jigéen ci bés bi mm-hmm. mu jóge fa tuddee ki nga xam ne Pape Jëleen Ndiaye bu jógee muy ñëw bu bu bu bu bu leen njëkkee stade mu fees ndax fa muy jógee tax jéleen lay jógee ak mbokki kaaj yi ñoo ñooy jolof nag ndax liggéey bu jëlee ndaw moom la Birame Ndiémy Kumba jëlee woon jé géneen indi ko mu am tase ak Green ak Lat Samba. Mhm. ñoo ñooy buur yi ñooy maam yi moo moomu toog kon kooku bu jógee rek xam nga ne jolof jóg na bu jógee tamit kaaju jóg na ñu jóge fa def naa ne cinq drapo yooyu la. Mhm. waane Pape Aline. waaw tey bés bi ñu ànd ak ñu baax nag bëgg loolu yaaba. mën nañ ci euh, tudd ki nga xam ne mooy Idrissa Kobar mi nga jox léegi kàddu gi. Mm-hmm. di kenn ci yaaba. bëgg loolu yaaba bëgg loolu cap production. tudd ci ki nga xam ne tamit mooy daam jóob jarul ma ciy sori ndax bu moo ci waxee damay taataar tudd ci ki nga xam ne mooy conteneur mu ngi nii toog. Mm-hmm. depuis ci suba ba léegi boo gisee suñu bët yi nga xam ne nelawuñu. tudd ki nga xam ne Yaxya Fall yaa ko wax léegi. Mm-hmm. moom mooy yaaba bu yaabu ñëwul mën naa toog foofu. ndax moog yaabu àjjuma ak gaaw la bés doxul seen diggante. Mhm. tudd ki nga xam ne mooy Socé Ndiaye. jërëjëf tudd ci ki nga xam ne mooy Baye Ndiaye mi ngi nii toog. jërëjëf mhm. tudd ci ki nga xam ne mooy Mamadou Kobar mën naa ko bañ a tudd la ma ko waxoon sànq. waaw tudd ci tamit Diome njaay ak nag a Mamadou Amadou Dia. jërëjëf waaye Pape waaw ma bëgg rek nga may ma tuuti. waaw ndax boo gisee lii peccam liir bu neexee nday jaa tey ci wax. loolu am na waaw te amuñu ku dul le ministre de l'intérieur Alaaji Ali Nguy njaay mi nga xam ne mhm. boo bañee gis yëfam boo duggee jolof gëmmal boo weesoo fii nga xam ne mooy mooy kàddu bàlloo ji mm-hmm. jëm jolof foo gis da nga fa gis mm-hmm. yëf nguy njaay mm-hmm. te dara ñor ko lu dul président Macky Sall pour mu dem ca kanam nga xam ne Aly Ngouille moomu depuis bu mu joxee président Macky Sall ba léegi bank ko nga xam ne jolof nag bu ñu demee ba ñu daray ndakaaru grâce à moom ñu ngi koy ñaanal mu àgg yoon yàlla sàmm ko sàmm ko bàyyi ko président de la république ba seen liggéey bi yàlla bu ko dara fakkasal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim jërëjëf gisee kàddu yi rafet na euh, ñu ñëwit ci sunu beneen xarit boo xam ni ni ngi ci jotaay bi moom it nag jolof la féete waaye bari na lu ñu doon déggante saa su ne jàppaleel mbëru jolof yi la may wax Pape Aline mbëru jolof yi fexeel ñu am combat Dakar Pape Aline fexeel ñëw jolof def ak ñoom dara mu sant ñasit suñu digganteeg ñaseen yi kóllëre yu bari lal ko ak teraanga yu bari ndax boroom kër gi alaaji Sidi Lamine Niass xam ngeen ni Niass la sant te nag fa tubaar fa kàlla olof yi dañuy faral di wax ni ku tax nga gën koo war gën soo gore rek sab sang la kon yàlla teral nu nag ci barkeem am ku ne ci saal bi Maodo Niass Niass teraanga Maodo ñoo ngi lay nuyu yow it euh, jolof gënu jëm yaag ñoom a dëkk mbër yi ngay seen mag am ci ñoom yéene looy wax ci bésu Kapi Production. bismillaahi mina seytaani bi di nuyu mbër bi ma yëkkatil sa mhm. di la nuyu yow tamit di nuyu jolof-jolof yi ne ci salle bi yëpp rawatina fu ma jógee gase di nuyu suñu mbokk yooyu nga xam ne xamante wuñ yaaba ak uh, sama nijaay bi sama kanam kobar te xamante wuñ di nuyu aji soosi bi di nuyu waa jolof yëpp waaw li ñuy wax rek comme lépp buñ ko bëggee wax fi la ñuy toog fi la ñuy fanaan ñi wax nañ lépp waaye dañ ci baamtuwaat tuuti rek koo xam ne dañ doon ànd euh, depuis muy xale comme liñ doon wax bi ñuy déggante jàppaleel mbëri jolof yi tombeeg yaa baa ngi suuf di jàppale mbëri jolof yi te bu ñu sañoon tamit ñun tamit jolof jëm kanam ndax amuñ lu dul jolof mm-hmm. waaw xëy na dañoo xëy dañoo xaw a réeroo rek mm-hmm. waaye buñ sañoon mbër yëpp jëm kanam comme nag yaaba moom moo pro moo def loolu yàlla na yàlla yokk ñun ñëpp bañ bañ bañ bañ bañ gis ci suñ bopp mhm. di la sant yow tamit Pape Aline ku baax nga di sant uh, suñ mbokk bi tamit mhm. ndangaan sàmb mi nga xam ne moom lañ ànd di ko ñaanal yàlla may ko ndam ci kaw bébé gas mhm. di ñaanal uh, bër yëpp ku ci nekk uh, yàlla may la wér nga ñëw di sant nag sama papa di ko ñaanal di sant sama soxna sama benn doom baay Ibrahima ñas mhm. ak waa Tëngéej du ma leen fàtte Lamine Gueye waa groupe Pencum gase maa ngi leen di ñoom ñëpp daal. jërëjëf Maodo jërëjëf mhm. Baba Leen. jërëjëf Maodo kàddu yi rafet na yéen ñaar fa tubaar fa kàlla noonu ngeen dendee dinañ séq yeneen jotaay muy yow Maodo Niass ak sama mbokk El Hadj Matar Guissé ndax fi mu duggee man ci cosaanu jolof ak taarixu jolof ak li fa jàmbaar yi liggéey dinañ amal beneen jotaay boo xam xalam dañuy gunge rek ñu ciy waxtaan. Euh, kon ñuy fàttali it ni laata ñuy ñëwaat ci jotaayu journée Kapi Production ñëw ci signature bi ak it euh, li nga xam ni dégg nañ ko ci kàddu yi kilifa yi nu toogal liñ ciy tënk. tey jii Diamond Events ñoom it dugg si ci làmb am na takkusaan gu tëgg arène nationale ki nga xam ni mooy euh, Jetli daje fa ak jamteeri bu Kayar Jetli nag ñu koy félicité di ko encouragé ndax wax dëgg yàlla dafa bëri ba combat bi jeex ki nga xam ni mooy jamteeri am ndam moom it ñu koy félicité bu baax a baax kon dañuy ànd topp làmb ji am lu ci tënk rek ak tey nag jotaay bi waa Linguère ñoo ko moom jotaay bi Jolof la li ma ci jaaxal rek sànq Alaaji Matar Gise mi ngi wax li mu tombe ak le 8 mars le 8 mars muy bés boo xam ni kon bésu jigéen ñi la sunu xarit sunu soppe yu bari doon ñu ci woon Ndakaaru waaye ren sunu boroom daf ñu ci boole ak waa Linguère te jigéen olof dafay wax ni jigéen mooy jigéen fa tubaar fa kàll ngëneel rek la ci yàlla di denc ngëneel la ci yàlla di dëxëñ kon jigéen ñëpp ñu leen ciy ñaanal jàmm ñu ànd ak waa régie dugg waa am lu nu tënk rek dellusiwaat mbokk yi day gaaw day yàgg. suñu borom rek moo xam mais man pare naa lép li day dem day déglu. lu mu laaj rek moom mooy tànn bu ko neex. mooy tànn bu ko neex. na gaaw a joxe boppam balaa maa tax. li nga xam ne entraînement nga. boo entraîné damaa pare. da ngaa pare damaa pare lépp kaali. kon mu pare ñëw ci bés. waaw day dem wala day déglu. day dem may bëri ñaar moon woon ginnaaw Jet Li bu xam sa cosaat la moo takk ngemb lu weex pare na Jet Li pare na arbitre sifflé na combat ba ñi ngi leew too Diam Terry Jet Li ñi ngi leew too moo yor ngemb lu weex moon woon ginnaaw Jet Li la nu jàkkaar lool ñi ngi leew too ñaari mbëri ñi ngi leew ñaari mbëri jam jeerek setli jam jeerek setli jam jeerek setli setli mu xam sa cosaan ngi leew to jam teew na song ko daje nañu daje nañu setli kor na ko setli kor na ko setli kor na ko setli kor na ko setli kor na ko jam jeeri door na setli fayu na xeex nañu xeex nañu jam ceeri set ni jam ceeri moo jóge Kayar set ni jóge xam sa cosaan dina Diamond Events set ni dóor na jam ceeri fayu na jam ceeri set li songoo waat nanu set li na jam ceeri dafa tëye ñaari mbër yi jàppante waat nanu laa ilaaha illallah ni lan ko waxee woon Walfadjri seen signature contrat jamono benn su tëgg bés bu rëy jël bés bi indi ko wal fajri ñu ànd liggéey ci ci signature contrat ñaari xale yu dëggal ci seen bopp ku ne la nga waxoon bëre nga ko mooy li wolof naan góorgóor la feeg waxul waaye su waxee te jëful jarul. Jet Li dóor na Jet Li dóor na Jet lay dóor dem céeri Jet Li ak kanamu ñaari mbëri mi tax nañ ba mi-temps. arbitre baa wax ak ñoom. arbitre baa ngi wax ak ñoom. jam cee rek na bëri nañ ba mi dellu si waat ku ne dem nga ca say mbok ñu yàbb la dolli la wax la li nga war a yokk li nga war a wàññi mooy li nu naan wàllu teen a ku ñëw ca pind ba ngay yam ma ba xam la nuy changé jam teeri setli ñu ngi lew jam teeri setli ñu ngi dégloon tey jaari bëri jot li wàcc na tolloog moom jam teeri ngi ne tekk di ko déglu di lew too ànd moom lew too bu ndim diggante arbitre baa ngi wax ak ñoom nee na nañu daje bëre jam téeri setli jam téeri setli ñu ngi setli sànni na jam téeri mem na topp ko setli mem na setli cokkaas na setli cokkaas na jam téeri cokkaas na ñu ngay leew too setli door na jam téeri door na ñu ngay leew too jam teeri yooru na daje nañu jam teeri jetli jam teeri jetli songo wat jam teeri loxo ba jàpp na ngeem ñu ngi dégloon te jam teeri jetli kenn mayul sa borom dara diggante loxo ba lay dindi jam ceeri teq na ko bëtt na ko wër na ko ndombo jam ceeri daf ko teq jaar ca ga bëtt ko wër ko ndombo daf ko bëgg a yëkkati seet bañ na seet li bañ na ba jam ceeri yegg sori na a ah, tuur na ko jam ceeri ah, daan na seet jam ceeri bu kayaar daan na jërëjëf kon waa Régis muy li nga xam ni moo amoon euh, arène nationale dañuy ñëwaat kon ci jotaayu làmb yi ñaareelu ponk émission bi muy signature contrat journée Kapi production euh, mu war a doon le 8 mars muy amee fa nga xam ni mooy euh, stade Cheikh Tako Koumé bu Linguère bala nuy gën a sori sama nijaay Xaadim Samb communicateur ñu koy jox cëram ak wàccuwaayam di ko nuyu yaa ba ma lay jot li nuyoom yaak staff bi ngeen àndal yëpp. nee na mi ngi topp jotaay bi jolofit di dëkk bu mu miin taarixam séq ak waa jolof teraanga yu bari euh, ginnaaw loolu it dañuy wéy am na ñu ñu jox ci saal bi kàddu bu ko defee moom lu ñu tënkal laataa ñuy ñëwaat ci jotaayu waxtaan euh, kon dañuy jël kàddu gi jox ko kon ku mel ni euh, ki nga xamante ni moo di kon amadu ja mi ngi ci jotaay bi moom lañuy jox kàddu ko defee mu am lum ci sànni bismillaahi mina seytaani rajiim mhm. bismillaahi rahmaani rahiim di wax ne gannaaw bu ñu santee yàlla di julli si yonent bi ñu sant suñu ñaari waajur bu baax mhm. di ñaanal ko dem yàlla xare ko aljana di ñaanal sama waajur bu jigéen yàlla fekk fanam may ko fanu gudd lool bu àll ak wér su loolu weesoo ñoo ngi nuyu ñi ci saal bi ñëpp di rafetlu tamit jotaay bi ngeen ñu dalal fii si groupe Walfadjri di kontaan trop ci jotaay bi di wax ne comme ni ngeen koy waxee rek bés bi dafa nekk bi loo xam ne bés bu rëy la. Mhm. te ñaan nañu yàlla àgg si ak jàmm comme ni ñu ko commencé. jeexal ko ak alhamdulilah rabil alamin di kontaan trop si yéen waa Walfadjri taxawaay bi ngeen def. jërëjëf ci bés bi. kontaan nañ ci waa Jolof. waaw ndax. jëkkatil euh, micro bi tuuti sama nijaay waaw. ndax Jolof Cap Production. Mhm. dafa commencé woon di tëgg làmb di enregistré ay kaset bouclier. Mhm. ñu dem bay toog plateau rajo. Mhm. Jolof. waaw diggante Linguère ak Daara. kon tey bu ñu demee ba nekk suñu quinzième année. Mhm. ñu toog plateau télé. sant yàlla ñi ngi am yokkute bu baax. waaye nag lépp nag dañ koy delloo waa Jolof. ndax ñoom ñoo waral li ni mel. Euh, sama nga wax na ko sànq si cap production mooy lu jëm ci wàllu làmb. waaye dafa am leneen lu nekk ci gannaaw làmb ji lu am am am solo. ndax làmb ji buñ koy tëgg ñu ak waa Jolof ñoo koy bokk. Mhm. ndax kenn ku ci nekk li si sa wërsëg da ci gis sa bopp. parce que président day jël lu mel ni tey marché central bu Linguère boo demee am na fooy jigéen ñu bëri ñuy góor góorlu ñu xaw a néew doole ñu baal ma ci ni mu koy waxee. Mhm. ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu di wël jën ñii di yëngu ci wàllu di defar café di jaay ñii di yëngu ci wàllu dagg soble ñëpp. président wutal leen ay appareil jox leen ko ci jour bés bi ba pare togg añ boo xamante ne day ànd ak membre capi production bi yëpp mu dajale taalib yi nga xam ne ñëpp ñu ngi biir Linguère ñu añandoog ñoom ensemble. Mhm. parce que bëri na ku daan togg ñam ba pare sax dangay ngay woo taalib yi jël ñam bi jox leen ñu lekk mais bés boo fekkee fu ñuy joxe añ bi taalib yi vraiment ci am yëg-yëg parce que staff yëpp day jaxasoog taalib yi. kaddu yi rafet na ñu añandoog ñoom. Mhm. jël ay yére jox leen ñu sol ba parce que loolu lañ ci sentir loolu moo waral président lépp lu muy def ci bés bi rek da koy xeeb. jërëjëf lépp loo xam ne mi ko ci def rek da koy xeeb. da koy xeeb waxuma la sax ñaari grand combat bi waaye gis nga ñii suñ gannaaw. Mhm. ak ñi teewut ci plateau bi loolu rek doy na combat jolof. parce que tey loolu mooy coole ndax ñëpp ñu ngi koy xaar. Mhm. Euh, di sant nag bu baax aussi la ministre l' intérieur mhm. di sant soxnaam ndax. taxawaay bi ñuy def ci bés bi rafet na ndax bu ñu amee fit nag jolof tey ba taxaw di dem wax dëgg yàlla ñoom ñoo ñu may fit parce que nag ñoom ñoo xàll yoon wi te bu ñu amee nag ku mel ne maire de Linguère Aly mu taxaw taxawaayu ni mu bëggee jolof kon rakkam bu jógee taxaw pour moom it pour jàppale ko si biir jolof taxawaay bi nii rek la war a mën a mel. kon sant nañu yàlla bu baax. di ñaan yàlla rek ñu àgg ci bés ba ak jàmm di wax mbër yi yéen ñi nga xamante ne dañ leen a jox ay drapo ngeen di ko bëri ñi leen jox ay drapo bi ñun dañ leen a fonk dañ leen a wekk kon ku ci ñëw ak staff boo mënta ànd ak bàyyil xel ci lu mel noonu ndax bu buñ ci tëgg yàlla suturaal ñu mu àgg ak jàmm. jërëjëf kàddu yi rafet na ndax ñëpp suñuy naaw la lañ. jërëjëf sama nijaay kàddu yi rafet na conteneur bu ko defee moom it mu am lu ci sànni euh, ñu soog a ñu soog a wéyal conteneur bu ko defee kon. kon mi ngi noonu kon euh, ñu wéy ba tey ci jotaayu waxtaan ma dellu si ak Kapi Production ma waxtaan ak moom ci li nga xamante ni kon mooy wàccaay bi ak bés bi euh, El Hadj euh, Cheikh ba Ndiaye sa diggante ak programme bi ni mu tëddee wax nañu ko 72 heures la waaye social dafay am lu ni mel lu ko waral ak tamit ñi nga tànn ci bés bi di leen ci sargal muy parrain yi sa diggante ak ñoom. waaw Pa Aline comme ni nga ko waxee rek bala may ñëw sama diggante ak parrain yi. délégation bi dem ci ànd ak suma rak suma jarbaat di kenn ci man mhm. nekk sama homme de confiance mhm. parce que chauffeur mooy lépp mhm. chauffeur dafay sori ci njaati géyam muy di kële di alaaji soose nekk sama jarbaat nekk sama rak nekk sama confident nekk tamit sama chauffeur donc mënuma toog fii te duma ko gërëm ak Diop Ndiaye. Mhm. moom tamit xam naa ne ñooñu boo leen waxoon am waxit duñ sawar ci mhm. wax seen tur a ngi fi woon ñu waroon bokk ci ñuy gërëm waaw mhm. sama digganteeg parrains yi aussi dinaa ci ñëw waaye bala may dem boo gisee lu tax bi ngay waxee ñu indi parrains yi parrains yi choisir ñu leen pour ñu ñëw mooy dafa am kenn ci ñoom kenn ka nga xam dafa ma jege lool comme nu ko pelem waxee léegi siñ sëñ Babacar njaay ñoo bokk ci ndey bokk ci baay waa waajuram génn àdduna mhm. kon mënuñu woo parrain yi moom mu des moom mu des loolu am na loolu moo tax woowuma benn parrain mhm. ak mbër yi ko waroon a bëreel ak ñoom ñëpp inuma ci kenn dama jukki tuuti rek mhm. ci combat jëmmal jigéen ñi jëmmal góor ñi comme saa ñum ñu mën a yem sama diggante ak parrain yi nag du du hasard parce que lépp looy wër ci ñun rek moo ngi ci ñoom kenn ku ci nekk ci ñoom dafay jóg ngir développer askan wi ca la mu am mhm. ku ci mel ni tey ajaratu Maguette Seck doon jigéen gu mën góor ka nga xam ne daan doole rek la xam ak mhm. dimbali askan wi kooku tey su ñu demee ba bés bi tombeek le 8 mars il faut ñu sargal ko te sargal ko mooy sargal suñu yaay sargal ko mooy sargal suñuy jabar ndax jigéen comme ni nga ko waxee rek mooy jigéen mhm. loolu moo tax ñu tànn ko mhm. moom ajaratu Kumba Jaw ñu jël l'association des maires du département dix-neuf communes mhm. su ma juumul benn jigéen moo ci nekk moo ci nekk pourquoi muy moom kese benn jigéen bu mën a rek dix-huit te boo demee dëkkam gis fa lam fay daj li muy daj ci ñun ñëpp kon moom tamit ñu war koo sargal ci la huit mars mhm. ku mel ni Pape Jileen Njaay kooku dañoo bokk moom it ci ndey bokk ci baay ba pare buñ doon wax classe tey moom mooy sama classe ci pare yi parce que man ak moom ñoo jàng ndoo CI ba CM2 comme nu ko pelem waxee léegi rek kooku rek su duggee stade bi dina fees del mhm. parce que xam naa ne kër ndey ñu ngi waaj kër bay ñu ngi waaj mhm. te man mii di promoteur bi tamit day man moom laay ànd ak mhm. kon pour wax la rek proximité bi ñuy am suñ diggante Mara Ndiaye moom du ci dikkaat parce que wax naa la ñoo bokk lépp moom it tànneefam digganteem ak jeunesse ba digganteem ak ñun saa suñ jógee mu yëkkati doolem mhm. alalam jox ñu nañu joxeel te du wax fan du la laaj fan nga ko def mhm. borom drapeau bu mag bi nag di Daouda Samba Ndirouane Sow mhm. directeur financier OMVG bëgg dëkkam lool lu mu am yóbbu barke ci Barkeeji mooy Linguère Linguère mooy Barkeeji. Mhm. jàppale ñu lool ci bés bi am parrain yombul nga ñëw wuutal si ko ci premier coup de mu ne nangul naa la ak loo ci war a def pare naa pour def ko ci. Mhm. tey bi ñu xëyee ba léegi ci loolu lañ yend kon parrain yombul bu pare nag ñu tëxiñ loolu yëpp parce que ñoom it ah ku ku waxul dëgg ku ne wax safaan wax. Mhm. ñoom ñëpp dañuy liggéey le président Macky Sall. Mhm. derrière Aly Ngouille Ndiaye. Mhm. te man de li olof di wax peccum liir nag su neexee ndey jaa ko waral. loolu am na man de ku ma bëgg bëggale ma Aly. Mhm. wax dëgg fa yàlla xanaa danga ma koy nëbb pour ñu ànd. ndax doolee jën. ndox la ndox la loolu am na. kon ñun ñu amee titre bay titre tamit suñu sakk moom la. bu ñuy dox moom lañuy ñuy doxee bu ñuy nelawit moom lañuy ñuy nelawaale mhm. kon askanu lingéer bi yëpp ñoo moom drapeau ñoo bi mhm. kàddu yi rafet na leeral yi am na solo ma dellu si ak Dame Diop Mewane Dame Diop wàccaay lii boo ko déggee muy wane ni rek kon bés du tuuti borom lay tollool waaye it bés bu mag la ñu dëgmal bu tolloo ak jolof bu tolloo ak taarixu jolof bés bi it ak ni nga ko déggee ak wàccaay yi loo ciy waxaat waa jolof waa Pape Aline liñ ciy waxaat waa Jolof damay wax ni waa Jolof moom duñ leen fàttali. Mhm. ndax ñoo ñu ko gën a yàkkamti. Mhm. xam naa liñ ciy wax rek liñ leen doon dig ñun chaque année rek ñu ngi koy def dañu waxoon ne luñ def ren bu déwénee bëgg nañoo def lu ko ëpp. incha yokk ko. waaw jàpp naa ne daaw euh, tonnerre la woon ak Tidiane Faye mhm. ren ñu indi Valdo ak ak Ahmed Dem te ñoom ñaar fii laa leen koy waxee mbër nag dafa doy waar fi ne koo ci ne bu daanee ma jox la bu daanee la mu waxoon da koy dubte <laughs> waaye man daam joom maa leen ni ku ci wax waxi nit boo daanee dimanche le huit bu ñëwee mardi le mardi le nang le douze rek ma jox la avance bu ñu juboo mm-hmm. leen ko wax ci kaw nag waxi mbër ndax yéen ñëpp xam naa leen ku ci bëre million boo paree ni dama am victoire fii nag laa koy waxee tele bi ñëpp di ma dégg yéen ñaar ñii ku ci góor góorgóorlu ba am ndam te la ngaw lang wax ma loo man bu ñu jógee mardi ma jox la bu la neexee ñu bëriwaat ko mm-hmm. maa ñun. loolu leer ndax ñun lépp lu ñu am jolof lañ koy yóbbu. waaye nag dañoo bëgg ak si Dakar ndax danoo yàgg ci coow li te nag lii làmbatu wuñ ko dañ koo xam fi mu ne nag. Mhm. dama yox Pape Diagne ñi ko bu njëkk boo feebaree nan xooj ci sengoori mbëri rek jox la nga naan nga da ngay wér <laughs> ndax ci làmb lañ xamante ñuy déggante ci rajo yi. Mhm. daju sa génn lañ njëkk a gisee. fi mu ne sama boy yi bëre yëpp moo leen yor. Mhm. muy lamb ji dox nag muy kaw kaw 100 pour cent may 200 pour cent. ma dëkk Mewane mu dëkk Saxaaf. Mhm. ñuy dund làmb. waaye daal li wër te mooy damay wax ni Linguère ku tardé làmb ja rek perte nga. Mhm. ndax xam naa li doo togg pour yàq ko ak li am na dem bëgg ni foo ko yàqee lim waa ñànk tag mu soos ko xajul sax fii ndax laajal Pape Diagne am nañu bëree bëri ñu doon wax jaay nu combat bi barke yonent bi. Mhm. ñoo xam mën nañ cee def liñ ciy def am ci luñ téye suñu poos. te duñ jóg fi toog waaye nag dama wax ni kii moom. lingeer a dee ci xol bi moom laa leen nawe nag man meewaan laa dëkk di kajoor kajoor mm-hmm. dëkk ci àddina bi meewaan ma ci gënal mm-hmm. waaye damay roy seen jikko di ko indi meewaan aali nguy looloonu boole 2004 lañ xamante mm-hmm. nguur gi dabuñu dama ànd moom ban jot ci ñun duñu militant ay yii nanga maki nanga man damaa def transfert di wate ji aali nguy njaay ndax man dompat ci sot la bokk ki yaa ba rek ku ko jàpp nu jàpp la man ànduma Macky Sall tey bu ko aali wanan ginnaaw suba ñu xam ne àndu ñoom moom waaye lu aali wax noonu la bu nee waaw waaw la bu nee déet déet la. loolu leer kon nag ñun ñëpp ñu ànd dama wax ni nag dama invité ñëpp. waaw ñëpp lañ invité. li gën neex nag diggante Mohamed Ndao Tyson dama wax ni ñoom Mohamed ndaw Tyson bëre nañ ba bàyyi buñ bëree daan waa Linguère di xëm ak mus ñu leen a gis. Mhm. ñoom yaxe joom ñooñu. Mohamed Ndaw jox naa ko leetaram jot na ci. jot na ci Tyson moom waaw dama bëgg li laay war a sóoli nag mu siggal ñu ñëw Linguère siggal ñu ak Yaxya Jóob mi ñun lool mooy suñ bëgg-bëgg ndax ñoom yàlla dogal na fu làmb àgg ci Sénégal fii ñoom la te nag ah dañ leen di si tiitaroo dañ leen tiitaroo mm-hmm. Pape Aline yow nag mënu maa wax ci yow ndax wolof day wax ne lu yàgg dëgg la eh, eh, nga guddil ma eh, bëccëgal ma ba tey nag yàlla dogal ñu ak si fii mm-hmm. waaye daal dama wax ne la Cap Production daal suñu bëgg-bëgg mooy fii ñu nekk li gars yi def ñu di ko def ndax li ñuy def man nan ko te nag damay wax ni ko paa ba ngi nii xaalis bépp ci moom laa koy wañ jox ko ñun di duñ wax mbër demel ba suba de mm-hmm. li ñu tëggee làmb lépp a ngi suñ poos yëkkat nañ ko jox ko mm-hmm. suñu moyen bopp kon nag ñu ngi jéggulu kàddu yi xam ni loolu lañ ci bëgg na waxaat. Mm-hmm. ba kanam ñu doxal li ci def. am na solo jërëjëf boo ko defee dañuy joxaat njaxat rek ak Demba Gile ñoom it ñu ñëwaat ci ñoom moo am lu ñu yëkkati rek laataa ñu ñëw ci signature bi waaye Pape Diagne euh, kàddu ñu dégg dal na xel rawatina ñaari mbër yi nga xam ni ñooy bëre ku daan ñu jox ko avance bu nu jógee Jolof loolu am na solo ci biir waxam it mi ngi ciy woo Mohamed Ndao Tyson mi ngi ciy woo Yaxya Diop ni ñoom it ñu bokk ci làmb di dundal làmb jàpp naa ni fu ñu leen woo di fa suqali làmb war na nu wuyu te ginnaaw woote bi mu leen woo ñu nit bu nu xëyee dinañ ci def jéego yoo xam ni dinañ gën a jot ci woote bi dinañ ko dégg yéen biñ ciy am mooy ñu ñëw Jolof euh, pap Diagne foofu loo ciy dolli yow. waaw fi ma waroon a commencé rek mooy euh, di féliciter sëñ Modou Niang bi nga xam ne tey moo doon organisé ca euh, Bargny. ñu ngi koy nuyu bu baax. nekk sixième journée am. waaw ci diggante Pape Rebo ak euh, zootechnique numéro 2. Mhm. di féliciter et puis ba Mouhamed bi nga xam ne moo tëggoon Jadli ak. Euh, ak jam ceeri ak jam ceeri kon ñun manager yi bépp promoteur bu ñëw ci làmb dañ lay la ñaanal yàlla man ren yàlla nga mën déwoon lu yaa manager jet li maay manageru jet li noo ak jam ceeri moo daan jam ceeri la arbitre di jox victoire mais jet moo daan parce que jam ceeri dafa teg fees fi ma toog ci làmb ji lañ may woo Saint-Louis ni ma jëm cëri teg na fees te incha allahu rabbi suba daa dem CNG dugal recours bi kon ménage wu jet li bu suba dafay def recours incha allah recours CNG kooku beneen jàngatu làmb la beneen bi ci tegu mooy fi ma waroon jëkk aussi mooy gërëm ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye mhm. di ko ñaan yàlla suñu borom lu man ren de woon yàlla na man lu këpp mhm. xam nga boo gisee ñu bëgg fonko mooy kilifa la goo xam ne waxam bëriwul mhm. te it li may wax toujours damay wax ni nit su waxam bëriwul maanaam su waxam baree jëfam sax mën naa néew mais Aly wax ji bariwul te jëf ji dafa bari macha allah. te it lépp lu mu am jolof la ko yéene. Mhm. nga gis la mu liggéey ci jolof. li communicateur bi wax sànq. Mhm. soo duggee jolof ba départ maanaam boo xasee génn daara rek yow boo bañee gis li muy def. Mhm. mooy gëmmal. mais soo ñëwee li da ngay xam ni vraiment kii nit la koo xam ne dañ koy ñaan yàlla suñu borom yàlla bàyyi ko ci réew mi. liggéey bi muy liggéey président de la république yàlla def seen diggante tamit comme ni mel mu gën a jëm ca kanam kanam. Euh, kapi mi comme ni mu ko waxee boo gisee ministre de l'intérieur rek gis nga ko. mooy àdduna lépp lu ci yàlla suñu borom defal nit rek mooy yar. Mhm. comme ñi ñu jiitu dañoo yaru ñi ngi ñaan mbëri ñoom bu ñu dem ci discipline dem ci yar dem ci ay teggin te xam ni ñaar ñii ni ma ko waxee toujours Jolof am nañ combat boo xam ni damay féliciter Ahmed dem di féliciter Valdo. Mhm. parce que combat bi ma ko taxawalee ba pare yàlla xam na ko daam bi dama bàyyi ma fenn ay nitu kàddu lañu daam day nitu kàddu may nitu kàddu promoteur bi di génn wàllu daam di génn wàllu ci ñun ñëpp Ahmed Dem bi mu jëlee avance am na coow lu ko topp ci benn promoteur doon ko wax ne ko si diggante ak Modou Dia ba coow li bari mooy muy gor su doon keneen day dellu avance bi mhm. jëli combat ba Valdo mii digganteem ak Khadim Samb bëggoon na ko moom ak Aliou Sey numéro 2 mhm. ci combat bi nga déggoon coow li it muy gor sama kàddu moom it su ma ko joxe jeex na kon ñaari mbëri dama leen di félicité di la wax ne ñaari champion yoo la nga xam ni kenn mënu leen a bañ ci làmb tey ci Ndakaaru déedéet ñaar ñii du ñu ñuy présenté mhm. bokk nañ ci mbër yi gën a yaru Sénégal bokk nañ ci mbëri yi dàq bëri Sénégal di ay champion di ay ndaanaan di leen ñaanal ñoom seen carrière yàlla na yàlla defal jàmm mhm. parce que mbër moo dékk micro Pape Aline day wax bëgg a tere samay waajur njaxat ñi ngi lay nuyu demba si ñi ngi lay nuyu di nuyu Omar Diallo male bu baax a baax moom it fu ma jug ma fa guddeeg bëccëg subaa ngoon di yëpp Cobra yow ñu la da dañ lay ñaan ak gudd fan ak wér. Mhm. ba ci kanam ba ci kanam am na solo ci sa biir waxit yaa ngi tudd Aly Ngouille Ndiaye di def mhm. seede ci moom mhm. moom it ñu koy nuyu di ko jox cëram ndax wax dëgg yàlla nekk ne kilifa goo xam ni nin ko gisee tax nañu ñeme njabootam ba jëflante ak ñoom ndax kenn mësu ko dégg mu xas kenn kenn mësu ko dégg mu wax lu ñaaw te woy politique yi loolu it da ciy am solo doon référence dina tax ndaw yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi ak it gox yi dëkk ñi nga xam ni ñoo fa ne fa tubaar fa kàlla roy ci ñoom loolu mooy njariñu ëllëgu Sénégal li ndaanaan la doon wax Sénégal ay sunu gaal joow leen yéen te kon loolu dina ci am solo dañuy ànd ak ndaanaanu làmb yi nga xam ni ñoo fi ne bu ko defee mu am lu nu yëkkati ñu bégalee ko ñuy topp jotaay bi soog a ñëwaat ci jotaay waxtaan mbokk yi. mujjee ku del baale jaajëfal bu baax ñoom it daanaanu làmb yi nga xamante ni euh, ñoo fi ne muy njaxat ak sunu dijaay Demba Gile euh, jërë ngeen jëf xanaa bala nuy gën a sori ñuy bàyyi xel waa port waa Molde ñu leen di nuyu bu baax a baax di ko teg ci loxol sunu ndijaay Papa Ndiaye Dubaay kon waa Molde gépp ñu ngi leen di nuyu naka noonu waa Guy Murit te Tëngéej sunu ndijaay euh, muy njaxat Cissé Madamel kon du ñu def lu dul wéel jotaay bi ñëw ci ñaari mbër yi nga xam ne ñooy njëkk a jàkkaarloo journée Kapi production bu ko defee bébé gas bu Daara Jolof war ci jàkkaarloog ndangaan sàmb mi nga xamante ni kon moo ne Linguère du ñu def kon lu dul woo ñaari mbër yi kon euh, bébé gas bu Daara Jolof moom la ñuy njëkk a dugal ana bébé gas bébé a ngi noonu di ñëw bébé mooy ñëw daa sa micro ko micro bi bébé gas bu daara jolof moo ne noonu bébé yegsil am takkusaan ci biir journée Kapi production mooy kon le 8 mars mu war fa bëre ñëwal tuuti champion ñuy fàttali mooy daje ak euh, champion bi nga xam ne mooy ndangaan samb bu Linguère ndangaan samb moom it doon ko dugal bu ko defee mu ca champion champion ko micro bu ko defee ñu jàkkaarloog sunu ñaari ndaanaan yi nga xam ni ñoo war a daje bébé gaas waa daara waaw salaamaaleykum salaamaaleykum Jolof salaamaaleykum ba ñu sant yàlla julli ci euh, ngi lay fay bu baax di nuyu waa plateau bi yëpp xam nga di nuyu aussi assistance bi yëpp ñi nga xamante ni tey ñoo fi nekk mm-hmm. di nuyu sama adversaire Nangaan Samb ah waaw xam nga di woo waa Jolof di waa suma waa koñ yëpp waa Yaraax xam nga particulièrement waa sant yàlla xam nga di nuyu sama mbokk mool yëpp mhm. suñu waa gaal ferraille un ferraille deux ferraille trois xam nga cat ba cat Modou Mbaye Séeré Awa xam nga ak Kumba Bàcci suñu capitaine yëpp maa ngi leen di woo ci combat bi yaa di woo ci combat bi di nga woote nuyoo bi am na solo ñu may ndàggaat Samb moom it mu nuyoo asalaamaaleykum maa leen nuyu yéen ñëpp di seen wàccuwaay nuyu sama grand hmm. yaaba maa ngi leen nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn cat ba cat di nuyu nag Kaolack gu ma jógee wàllu Saloum ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu ñu ngi ñu ngi may seetaan ñi xam mhm. ba cat bàyyiwuma kenn. Mhm. di bëggee nag waa Jolof itam. waa Jolof nuyu ñoom ñëpp. Mhm. looy wax bébé gaz. Ah, de lu ma koy wax rek comme comme dab rek lu may wax ay moroom laa koy wax. di ko wax ne daan naa ko ba pare rek moom. waaw moom. te bëreegu waaw. am naa yaakaar ne moom te incha allah daan naa ko pare. daan na la ba pare te bëreegu leen loo ciy tontu. waaw bala may ñëw ci moom sax maam nga ma fàtte quoi ñoom waa mhm. ñoom ñoo ci euh, ak euh, Bamba Niang ak euh, ay ñoom Moussa Niang xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di jaar bu baax a baax xam nga ñoom Moussa Camara Cheikh Thian. Mhm. kii nag du ma aw ma la wax parce que daf fi bàyyi ñëpp jël ma. daf fi bàyyi ñëpp jël la. waaw bu doon daw xasaw bu doon daw xasaw nag. Mhm. dama naan ko tey dugg dégg dama ne ko man jolof. Mhm. jolof maa moom. jolof waaw. yaa ko moom. jolof maa ko man bébé kat xam ma loo xam ne la maa ko. kullu mbër. Mhm. moo ci des. moo ci ku juddoo foofu man daan naa la. Mhm. kii xëy na am na sax ñoo xam xamoon comprendre mais ñii ko fi indi ñoom ñoo la gën a xam combat bi. ñi ko fi indi. waaw ñaanu ma ko dara nag te loo ma may ma jël. te kii ba may jàng bëre moom ba may jàng man bëre. du moom moo tax. te bu jour ba li ma lay wax rek mooy que ne nangaan lu ma ne la sax nangaan amet amet fleur laa lay wax fils de maam ya fleur yëpp ay champion lañ ñun xam nañ leen dama la xam li ma la ciy wax lenn rek la mooy bu jour ba yow dama lay ñaar nga dëggal sa bopp kii bu dëggalee boppam li ma lay wax combat bi mënul am une minute su dëggalee boppam. su dëggalee boppam su dëggalee boppam moom. dëggal li mu wax fa mu ne mbër ya fa ne yëpp daan na leen xam na la te xamoo ko boo dëggalee sa bopp. waaw maa ngi delluwaat di nuyu rek Kaolack gu ma jógee parce que ah, samay ménageur maa leen nuyu ak sama njiit waa Ikri ay père laay mu ma yor Ikri ni nga nank yëpp maa ngi leen di bëggee di leen nuyu ñoom ñëpp leen ñaanal ren am ñu am jot am combat foofu ñoom Sa Ndiaye ñoom ñëpp yal leen yàlla may ndam ñoom ñëpp daal maa ngi leen nuyu. di leen gërëm wax sa waay. waaw sa de comme li mu fi wax rek nee na maa am maa ko mën a bàyyi naa fi ñu jël ko comme ni ma def ay moromam rek xam naa ne day ci kàttanu yàlla ak yaakaar gu ma am ak kattan gi ma yàlla may ma nii. Mm-hmm. incha allah bis baax du ma arrière. doo arrière laa la wax de man ma teg sama lam sama ngem. Mm-hmm. man ku ma xam xam ne nangaan sàmm mënumaa comprendre. xam nga mbër mu dul arrière. <laughs> loolu ay wax la sàmm képp ku ko xam laa la wax du arrière. du arrière. attaque lay def te di si kattan yàlla. bu mm-hmm. bëree ma dóor ko. bu bëriw dama koy dóor fekk force doole mbaam dinaa la dóor dinaa la daan du ma la téye mooy lay daan mu lay mu lay naqadi barke borom Tuubaa dinaa la daan. barke El Hadj Fallou Mbacke fii laa ko mhm. bu jour ba. xeex. doo xeex. doo bëre. doo bëre. doo doo daan. boo xeexee. boo xeexee boo xeexee boo xeexee ma duma la. ma duma la soo bëree ma daan la. bëree mu daan la. bal li ma la wax nag. bal moo gën a neex nga bàyyi ñu xeex. bala ma bala nga gën a neex nga bàyyi ñu xeex nga bàyyi ñu bëre ñu xool ku dàq bëre ku dàq xeex ku dàq bëre yàlla la yàlla may ndam amiin yàlla baali mi te damay ñëpp seet nañ loolu daan moom def naa dama ne la nee na ku dàq bëre dama la yàlla la yàlla may ndam la dàq bëre nangaan ku dàq bëre ku dàq bëre yàlla na ko yàlla may ndam hmm? ñaan googu foo ko teg kii du ma moromam ci bëre doo moromam ci bëre parce que alaaji Fallou Mbacke hmm. ma moromam ci bëre hmm. seetuma ko sax yàgg na ñëw làmb may jël làmb di dem ay mbokkam di ko boot di ko yóbbu nee naa la du ma sax taxaw fi naa la jël naa nangami drapeau parce que boo ko waxee sax am na ñu mënul nekk parce mhm. que alaaji Fallou Mbacke yàlla tax may wax am na solo koy woo ci combat bi ngir mu jàpp ci waaw combat bi ñu ngi si woo bëri na parce que li ci mel ni la ministère Aly Ngouille Ndiaye mhm. li ngeen ci wax du doy parce que kooku loo ko sant rek doyul ñu koy woo ci combat bi di woo le ministre euh, Samba Ndiobène Ka di woo xam nga di woo bu baax a baax menuisier euh, di ko woo ci combat bi di woo suñu waa mairie muy Mawa Ndiaye di ko wax mu may ñu ay car parce que ñun lu am ci ay ñun lu ñu waay mën di dimbale nañu ko maye ay car quoi xam nga parce que ñu bëgg a dem bëri nañu mhm. sama waa dëkk nag moom amuma seen fay muy waa Ngeet franchement mobilisation bu am solo lañ def mhm. ñooñu ñooñu ñooy lépp ci ñun parce que tey fu ñu mën di dem tey ñun ñoom ñoom ñoo ñuy dooleel ñoom ñoo ñuy doole kon tey ñoom ñëpp taxaw di seetaan émission bi ñoom maa leen di sant maa leen di sant bu baax a baax di leen di bu baax euh, euh, naa ne ma nga toog moom moom nga xamante ni mooy magu gars yi mais mooy euh, mooy maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax xam nga di woo ñoom Moussa Thiane ñoom Moussa Camara xam nga ñoom Cheikh Thiane xam nga ñoom El Hadj suma waa dëkk yëpp xam nga di nuyu a suma waa koñ nga may woo leen mu ñu mel xam nga suñu waa gaal ñoom ñëpp xam nga ñu waa gi genn gaal xam nga li ko dalee ñoom pël pen xam nga ñoom building ñoom Samba Ndaw xam nga ñoom lacc boo yëpp maa leen jaar Aliou Frère Sapo di ko wax ne kooku moom maa koy bëggee jërëjëf kon gaa ñi dégg nañ la may ko may ko koy woo ci combat bi ah waaw maa ngi mhm. maa ngi rek waa Jolof waa Jolof di wax ne yaabu moom du ma ko gërëm leen nag laa koy dafa wax mooy mooy ñaan la ko yàlla ñaan laa am di ko ñaanal rek ak ñi jot ñi àndal yàlla dimbal leen seen ànd yàgg. yàlla defal leen jàmm ak salaam ak kàttan ak sutura di ko ñaan yàlla yàlla na ko yàlla defal ci barkal Alxuraan di gërëm ndam Aly Ngouille Ndiaye lenn laa koy gërëm man de mooy président parce que bu yàggu laa dem Linguère gis nu mu defaree Linguère man damaa bég ba am na sama xarit bu nekk euh, foofu pour mu nekk euh, Serigne Niang maa ngi koy wax ne Aly Ngouille Ndiaye mii day billaahi li mu def Jolof ma neex na ma maa ngi doo a gis ñu ku def ku defar ni Linguère waaye moom itam di ko kàttanal rek di ko ñaanal rek yàlla gudd fanam may ko kàttan ak wér yàlla mën na ko yàlla na yàlla defal ci barke a baax. waaw waaw dëgg la xam na. di a a nekk nga di leen wax ne euh, Seydou Ndiaye commerçant. Seydou Ndiaye commerçant ñu ngi koy woo ñu koy woo bu baax a baax ci combat xam nga. kon sama leen photo de famille bu defee muy souvenir boo xamante ni euh, mi ngi noonu na ngeen <laughs> na bopp bi lay dagg ah. kon mi ngi noonu léegi nag ñu ñëw ci komba bi nga xam ni mooy grand combat bi war a am fi nga xam ni mooy Linguère le 8 mars. Amet Dem bu Caaroy war fa daje ak ki nga xam ni mooy Valdo bu Bul Faale dañuy dugal ki nga xam ni mooy Valdo bu Bul Faale Valdo ménagem mooy Pape Diagne Seras muy ndaanaan bu am bëre di xale boo xam ni bokk na ci xale yi nga xam ni yaakaaru làmb la. nan ko gën a bàyyi xel bu ko defee sama gaañi da ngeen koy tuusal ndaanaan boobu ñi ko namm lool di ko bëggee mu am nu mu def ak ñoom ñu waxtaan. Valdo nag bu nuy fàttali am na kon combat yoo xamante ni am na onze victoire Valdo daan na Marley Valdo moo daan Pambaay daan Brise de Mer daan mbër laay aca mbër day yëngatu sama wawul sa gaay ñi ngi lay ñi ngi lay ñi ngi lay yóbbu Valdo moo daan Amadou Camara daan Mame Gor Valdo kon mi ngi champion jërëjëf mu ngi noonu de waaw <laughs> Valdo mi ngi noonu acca mbër ñëwal nii Valdo ngi noonu champion acca Ameth Deme bu Caaroy Ameth ngi noonu Ameth demal moom it am na 15 victoire ñuy fàttali assisé mooy manager moom it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Ahmed Dem moo daan colonel Sagna daan super jamono daan brise de mer daan ki nga xam ne mooy ambulance bu Thiès Ahmed Dem moo daan Bruce Lee champion nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay bu baax. waaw dam sànq dama fàtte sama waa ji. waaw Dame Dame Diop waaw. vraiment maa ngi koy nuyu di man li ma neex si moom mooy dafa invité. sama ménagère vraiment ku baax a ngi nii yàlla na la yàlla jàppale. vraiment maa ngi koy nuyu bu baax dama ko fàtte woon <laughs> jéggal ma moom kër. Valdo ah. nuyu naa lay fay papa ni lay fay bu baax ci nuyu tamit daam joob comme li amee dem wax rek xam nga moom borom baax la. saay tamit. waaw yaaba kap yi borom baax la Pape Diagne Jaraat mu hmm. ngeen di ñaari ndaanaan yoo xam ni làmb da leen boole. làmb boole leen it. seen jaar-jaar ci combat yu mujj xaw a ndiroo Valdo dëgg a jóge ci victoire daan li def année blanche lamb nam la nga war a ñëw bëre ji Linguère ki nga xamante ni kon mooy Ahmed Dem moo daan euh, li jóge ci victoire war a ñëw bëre ji Linguère Valdo nga daan maam Góor Diouf jóge ci victoire def année blanche war a ñëw bëre ji Linguère kon combat boobu dafa am solo ci yéen ñaar ñaari mbër yu làmb namm te ngeen bokk ci looy wax Ameth Deme ak noo waajalee combat. waaw loolu dafa loolu mooy mooy géej gi am na ndox rek dafa neex parce que tey euh, ñun si làmb lañ nekk. Mhm. bu ñu nelawee bu ñu yeewoo si làmb lañ nekk. Mhm. comprendre nga baax combat a neex. mënul bañ a neex ci champion la jàmbaar la. Mhm. ndaanaan la làmb ñu boole. comprendre nga taxawuma fenn di ko soxla taxawul fenn di ko soxla làmb ñu boole ñu war a bëre. te neex maanaam dañuy bëre moom bërekat la. Mhm. du teggi tànga te yaa ma a xam dafa neex a bëril. dafa neex a bëril yaa jàmbaar la. Mhm. Mhm. Ahmed Deme. yee waa comme ni ko waxee rek. Valdo champion la vraiment bëre naa ak Bruce Lee def année blanche te loolu du yoon ku daan champion bu toll ni Bruce du yoon ngay def année blanche. mbëri nag sama morom yi dan may teggi xaw ma nag lu waral lool. wax naa ko nag ay minti fois ne nekkatuma fii nag di toog di xaar. lu waral say peut-être ñoom xam nañ ko. ñoom xam nañ ko waaw man xaw ma. Mhm. wax naa ko si euh, si fu ma taxaw rek dama koy wax nee naa leen amatuma lu may toog di xaar. Mhm. bu fi prouvé am fulla ak fayda ku ni Valdo nga nekk dama lay jël bëre. Mhm. amatuma lu may toog di xaar. Valdo nag champion la ndaanaan mbër bu prouvé am fulla ak fayda waaw comme ni ko waxee. comme ko waxee ne day saf sap dama bëgg mu gëm loolu xam ne loolu day am. day saf sap ci yow wala ci moom. non day saf sap si ñun ñaar ñëpp. ci yéen ñaar ñëpp. Mm-hmm. saf sap ci yéen ñaar ñëpp mooy lan. waaw mooy neex bëri. xeex bëri. dañuy xeex dañuy bëri. di ngeen xeex combat xeex dañuy bëri. Mm-hmm. Valdo loolu jarul sax parce que tey Ameth Deme mënoo koo jël ba pare doo bëri mënul nekk parce que fii raayante moo fi amul. raayante amul comprendre nga bu ñu dajee jàmm ak salaam ñëw dëgg sore wuñu. Mm-hmm. sama waay la xama dañuy daje geeg ma jandal gaañ xama man tamit aussi doo mais làmb la moo ñu boole. yaa may dégg bu baax bu at bu pënd ba wuree abu sifflé dañuy saf saap dañuy jëflante dañuy ba mu saf saap. Mhm. parce que munoo daan samp yoo pare te saful samp yoo bu nooy amul moom bu fi nooyoon tamit dama koy bàyyi jël ko gën a teg non nooy mhm. li muy def nii jéemul sax nooy samp yoo la ndaanaan la barke Alxuraan du ma nekk ko raay raay wax de déedéet jàmbaar la bu nooyoon du ma ko fi. sama yoon jàmbaar ban taxawaay nga ci war a am. waaw taxawaayu jàmbaar booy li ma la wax rek bañ naa ko ba dama la ko jëkk a tënk ne la combat mënul yomb day neex. day ko nga jël ko. waaw sant yàlla rek parce que xam nga dafa wax wax bu am solo bu ma fi bu ma fi ñàkkoon fayda du mu bëreeg man te moom bu ñàkkoon fayda du mu bëreeg moom. Mm-hmm. comprendre nga parce que tey sport la ñuy def. sport bi dañ fiy jógee ñeneen dañ fiy ñëw. Mhm. te balaa ñu fiy war nañu marqué suñu empreinte. Mhm. te sur tànk lañ taxaw te bu soobee yàlla suñu borom dañ koy marqué. yéen ñaar sa borom rek di wax baax ku ma naan la tey man ma ko xalabee damaa xalab sama bopp. Mhm. Valdo ku ko xam-xam ku ne champion la champion d'Afrique man du ma bëree koo xamante ni non doo naanaan parce man ku xam-xam ku ne ay waxi moom nañ ko jël teg ka ku seetaan samay combat di nga pare. di nga pare waaj nga pare nga. waxi mbër nag dafa nekk lu xamante ni mbindum tefes la. mbindum tefes ndox moo moo ko fa moo ko fa mhm. mais nag dama bëgg moom mu xam ne comme li muy wax ne du yomb naka def si boppam xam ne combat bii du yomb. Mhm. waa Linguère am nañ combat bu rëy. am nañ combat bu rëy. naa ko waaw mais en tout cas daal Pape Aline lu ma la munti wax fii nii moom laa jëfee mhm. waaw. combat bi noo ko pare ak loo ci liggéey. non man combat déggoolu ma la combat boobu amul nu a bu arbitre a mhm. loolu kese a a ah, ko pare. comme d'habitude rek. man moom sama combat moom li ma koy préparé du yomb parce que damay def sama kéemtulaay kàttan parce que dama bëgg victoire loolu tax du ma bàyyi dara. sama bakkan bii laa si teg. Hmm. te combat bii si la Ameth Dème di le retour de gladiateur la ñuy wax. man dama bëgg ñu jël turu Ameth Dème bi teg ko fële di wax la gladiateur de l'arène. le xam nga gladiateur du réglé. waaw attaque rek. Hmm. gañe ba dee. Hmm. te allah dee ba dee gladiateur a ngoog. déggoo ma rang muy gaaw war a def retour am. déggoo li ma la rang rek jàpp defee rek. rang muy gaaw jàpp defee rek. luy loolu. ah. Ameth <laughs> dégg nga sa waay rang muy gaaw jàpp defee rek. dama ne gladiateur lay waxal de. gladiateur. déggoo lu ma la wax man déggoo lu ma la man xamewuma gladiateur ak fernateur. non du ko man a xam parce que bu xamoon lan mooy gladiateur. parce que xamul tax. waaw xamul tax mooy li ma la wax nii bu arbitre sifflé damay def li ma war a def li jënduguma gladiateur. parce que arbitre sifflé a def. gladiateur li jënduguma ko parce que xamul tax. boo nekkee bi di li jënd gladiateur tamit temps bi dem. temps bi dem. yee. waxuma ko lijjanti de damaa bëgg mu xam lan mooy baatu gladiateur. tekkil ko ko. déggoo lu ma la attaque amul réglé gagné ba dee. loolu mooy gladiateur kon donc xam nga ne day gagné. gladiateur. waaw des fois ñoom dañuy xeex seen biir ba ñoom dañuy daw wuti la renfort. dañuy xeex kon xamul gladiateur gladiateur dañuy xeex ñu xeex par la ñuy xeex. gladiateur du daw du daw <laughs> bu naree daw dem rek dee. dee. day góode. <laughs> gladiateur du daw mhm. déggoo ma la sa waay. incha allahu rabbi sooba yàlla sunu borom. combat <laughs> bii waa Linguère danoo am lu rëy. danoo am lu rëy waa lu rëy. ñoo am loo leen ciy wax. ne leen nu waaj. ñu waaj. nan waaj xaar. <laughs> le 8 mars incha allahu rabbi. waaw dara du doy. say bokk muy Thiaroye nun lay gunge Linguère. waaw waa Thiaroye géej ñëpp ñoo ngi waaj. vraiment ñoo ngi waaj combat bi bu baax ndax danoo namoon combat. <laughs> vraiment mu nekk nag Linguère. bon ñëpp nag ñoo ngi mobilisé wu di wax nag autorité yi ne Thiaroye nan ñu jàppale waaw ñu mën a mobiliser wu parce que Linguère dafa sori. Mhm. il faut nga am bis bu baax pour mu mën a dem. nan nu gaaw jàppale ku mel ni sunu sunu monsieur le maire. Daoud Niang Ndiaye. sunu monsieur le maire. Ndiaga Niang nan nu jàppale ñu mën a mobiliser ñi nga xamante ni mooy supporters yi. képp mhm. ku xamante ni nag mooy capitaine te nekk fa ñoo ngi lay tàllal loxo nga ñëw. ah Issa Marière kooku moom vraiment maçon spécial. Baye Ndiaga na ngeen ñëw ah Birane Marière na ngeen ñëw jàpp ci affaire yi xam ne ñu ay doomu caare lan képp ku xamante ne nag yàlla may na la kàttan te nga nekk caare ñoo ngi lay tàllal loxo ngeen ñëw jàpp si affaire bu baax. waa caaro yi dégg di gërëm nag sama gaay yi ma jaar euh, àndal muy Baye Dame ak Bomako ak. jërëjëf Valdo. Ah, Assane Assane Talibé Seex Assane Talibé Seex ñoo ngi lay woo Malick Gueye Ciss ñoo ngi lay woo di oo nag waa équipe bi yëpp ah waa caaro yi géej ñoom Baye Ndiaye Ndour président bi ak ñi mu àndal ñëpp. ñoo ngi woo ñëpp ñu ñëw jàpp si affaire bi. nu nuyu nag sama sëriñ sëriñ Issa Touré sëriñ Issa Touré combat bi combat am la Baye Seck combat bi sa combat la ñoo ngi lay woo Zal Coy Gambi combat bi sa la waa Lixaar waa Pambal Duñaan ñëpp ñoo ngi woo. man moom. balaa may def dara waaw balaa moom man taw taay doon baax a baax.